tey ñu ngi ci géejawaay quartier Cheikh Wade ci famille sata Tall Sall mi nga xam ne kër gii mën nañoo wax ne fii la yaroo ñu leen di laaj seen xalaat ci Aïssata fekk gi mu fekk président de la république ñoom nan lañu ko gisee kon nag. waaw maa ngi tudd amaat Tall laa tudd maa ngi dëkk géejawaay Cheikh Wade Aïssatu rak rak laa ci moom. waaw bon fekk gi mu fekki Macky Sall maa ngi koy rafetlu trop ñun ñëpp ñu ngi koy rafetlu parce que bu dul dara mi monté mouvement Osez l'Avenir ñëw na seet suñu. comme ni ngi ko doon defee saa su duggee ci benn programme ñu fekk ci ko di ko jàppale bu yàlla defee aussi mu déposer candidature am bon jàllul parrainage téye ko bon mu def ay recherche am ba fekki Macky Sall ñun duñ def lu ànd ak moom wax nag mënta ñàkk nga def lépp gaa yëpp ànd ak yow mënta ñàkk ñaara fi am opposition ak pouvoir ku ci nekk da ngaa bëgg lu dolli ñii wax ñëpp bëgguñu woon mu dem parce que avantage bu demee avantage ci Macky Sall parce que day peser xam nga ñoo ñuy wax bu sañ bu ñu sañoon tamit mu taxaw fee comme dab di sànni xeer Macky Sall Sénégal nag habitude lañ benn affaire ku ci nekk li la rek moo baax li la wut baaxul waaw loolu daal laa ko gisee quoi mais ñun ñëpp famille yëpp kontaan nañ ci te ñu ngi si ginnaawam jusqu'au bout nag fu mu joxoñ fa la dagg incha allah ñun waa Guédiawaye man Koumbel Thiam laa tudd dëkk Guédiawaye kat ci Cheikh Wade man Aïssatou maa ngi moom ay cousine lañ ah xanaa ñu fekk si comme que moom mag la moom mooy suñu mag wax dëgg yàlla su demee ci mag sàll ñi dañ ko ciy fekk si ndax ñu doon ay xale dong lañ dañuy topp ci ginnaawam xanaa kontaane kay mu ne kontaane jéem a wax moom du ñàkk ci dëkk bi xam naa ne moom ku nekk moom yaa ngi yow sa kàddu di wax ku nekk wax wax ju di wax wax ju waaye ñun ay mbokkam moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci ginnaawam kontaan nañ ci moom topp comme que loolooy kiwam loolu la jël décision dañuy ànd ak moom ci décision may wax dëgg yàlla Fa salaamaaleykum maa ngi tudd xawali naksama Sall nak sama dunde la ñu lu ñuy dundee lool lu dul mbégte rek parce que Aïssata Sall mom ñun dañoo fier ci mom parce que jambar la te gaynde la yit mom mom lu mu def rek ñun dañuy and ak mom da xamnañ ni duñu yobbu fu bon wa mom mom. xamnañ ni ñun ñep xamnañ ni gaynde la mom mom fu mu dem rek ñun dañuy top ci ginnaawam parce que ñun suñuy carte mom Osez l'avenir lañ ko bëggoon sànnil léegi moom nee na APR léegi ñun moom dañuy dem ci APR rek ñoom moom fu mu ñu yóbbu rek fa la ñuy dem incha allah. di ko wax rek ni moom jàmbaar la moom moom dañu ko nee na góorgóorlu ndax xam nañ ni moom jàmbaar la batante la ñun moom dañoo fier ci moom ñun moom ñu ngi ci ginnaawam rek ñun moom bu mu tiit bu mu ragal ndax moom saaga yi moom bañ ko déggee ñun ñëpp suñu xol yi tàngoon na bëggoon nañoo tontu mais dañoo ne bu ñu tontu bu kenn wax. bu ngeen def dara nañ ànd ak moom rek ci dal tekk ak teey incha allah.